mbokk internet yi maa ngi leen nuyu leen naan mu demee des de l'intérieur de l'intérieur ak ñu bañ ko dalal ba tax nag moom ayib dafee euh, euh, dugal na bii ginnaaw bu ñu ko teree dugg euh, e na fa déposer lii di caution Sonko ñu daal di koy delloo moom jamono ji ñu toll nag moom ayib dafee

l'intérieur fi nga xamante ne moom moo di CDC ak di mujjee egg fi nga xamante ne moom di Sénat moom moo daal di dalal ki nga xamante ne moom di jëm euh, ci wàllum candidat bu Ousmane Sonko ba tax nag moom Ayib Daffé mu sekku ci moom Sénat mu ay responsabilité euh, defal ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko mu doon si jongante élection présidentielle euh, bu février ma lañ jox di daje si yeneen jotaay xibaar leen naan bu leen fàtte abonné